saa yoo yeewoo bu ñuy def communication ci situation Covid ñu tudd Guédiawaye neexul ci xol waaye tamit nekk na loo xam daf ñu war a interpeller ñu aar sunu bopp te feebar bi ba fii ñu toll nii amuñ ci pexe lu dul masque yi ak di sorianto amul beneen pexe ba tax geste bu mel geste d'encouragement la waaye dafa mel ni appel la tamit ci population yi et principalement la jeunesse boo demee plage Malibu fii ci Géejawaay la fay fekk ci doomu aadama dafa jéggi dayoo dëgg la tàngoor bi dugg si na te neex na ci bakkan nit di dem ci plage di féexlu waaye nag féexlu yàlla na fa fekk wér yaram borom kon ñu ngi def appel vraiment bu sincère appel bu profond la population de Guédiawaye mais particulièrement jeunesse de Guédiawaye nous avons des solution faites par Barbie, li ci ëpp ci seen loxo la nekk euh, am le plus important nous utiliser pour école yi euh, ndax mairie bi fait na ay effort bi nga ne annoncé woon nañ ubbite école au mois de juillet waaye bu ñu ni ñu ngi jëmaat ci ubbiti école bu gën a mag boo xam sunu doom yi ak sunu rakk yi ak sunu jarbaat yi ñëpp dañuy delluwaat école loolu tamit appel la dëgg la am na ñoo xam ne ñu ngi mel ni Aziz di def effort di maye masque waaye ku ci nekk sa wër-gi-yaramu bopp sa bopp buy métti wala sa tànk di métti yow yaay yóbbu sa bopp dispensaire kon nag masque yi nañ ko def lu nga xamante ni dépense la obligatoire bul nangu bayi sa doom muy dem école te jëloo masque jox ko même bu dee masque bu nga xamante ni mën nañ koy fóot waaye bayi sa doom muy dem école yorul masque wóoru la ndax raxas na ay loxoom mu dellusiwaat ci kër gi xëy na moom du ko gaañ comme ni muy gaañee mag waaye mu indil la lor boobu yow boo aarul sa doom sax mën nga aar sa bopp